lu am solo mm-hmm. mais gis nga affaire bi explosion mbirum explosion démographique bi ci mm-hmm. combat bu rëy la te combat bi dafay découler à l'échelle internationale moo tax sànq bëgguma si woon xool mais l'échelle internationale mm-hmm. xam nga dafa am politique yu gars teg pour réduire la population mondiale surtout bo surtout africaine xam nga gars yi dañu ni ñu ngi ci huit millions huit milliards d'habitants man bi may gëstu ci mbir moomu ñoo ngi nekkoon ci sept milliards et mais nee actuellement nii production bi tiers monde Afrique la production bi gën a gaawee parce que boo demee si yenn réew yi que ce soit mooy ay Chine ay Japon mm-hmm. ñoom teg nañ ay mesures ay politique mm-hmm. yoo xam ne dina leen permettre ñu mën a wàññi seen seen population bi askan wa mm-hmm. tey am na ci réew yoo xam ci réew yooyu sañu fa am lu weesu ñaari doom xam nga voté loo fexe nañ ba voté ay loi ñu ne xale bëggatuñ ko gis muy traîner xale yëpp nañu dem école xale warul liggéey ko loolu politique la pour que xale bi bañ a nekk benn source de revenu léegi nay dem di jàngi parce que parents yi fii souvent en Afrique dañ doon dañ doon bëgg di jur njaboot ju bëri ñu leen doon aw si liggéey bi parce que facteur économique la léegi si politique yooyu ñu ne xale bi dootul doon source de revenu en argent mais nañ ko yóbbu mu dem jàngi parce que systématiquement bëgg nañ mettre la pression dans la tête des parents teg leen benn pression sociale ba pare yokk lu d' inscription xale yi ñu ngi jooy boo demee si école yëpp coût d' inscription systématiquement la ko gars yi defee parce que dañoo bëgg jouer ci mentalité parent bi parent bi nga xamante ni am na ñaari doom ba ñetti doom mu yóbbu leen école maintenant bu amatul lu mu leen fayee wala coût d'inscription bu chéré ci xalaatam doon na ni doonati na man est-ce que jarati na may jur njaboot est-ce que yaa ngi mhm. boo demee même l'avortement médicalisé gis naa ko si assises yi gars yi dugal ko si mu nekk ay proposition dina jur coow nag parce que am na am na communauté islamique ak chrétiens yi. waaw d'accord guñ ci. waaw ak euh, waa sàmm jikko ko ñooñu sàmm jikko yi parce que jàpp nañ dama leen koy nangul d'une part jàpp nañ ni xeex diine xeex tamit yokkute askan wi moo tax ñu indi loi yooyu. la de te même à l'échelle international fexe nañ ba voté ko. Hmm. avortement médicalisé. même boo gisee LGBT yi lu tax gars yi promouvoir leen parce que njur gi lañ bëgg a wàññi. Hmm. moo tax ñu bëgg léegi góor a góor parce que góor a góor. Hmm. doom mënu fa judd. moo tax ñu bëgg pro def promotion wu antivaleur yooyu nga xam gëmuñu ko mais problème bi fi mu posé wu. Mm. dafa am ci réew yenn réew yoo xamante ni politique yooyu pour mu jàll day day metti comme mi ngi mel ni fii homosexualité mm. xam nga xalaatuñ ñu ko fi voté mais systématiquement dañuy wut feneen fu ñu jaar parce que fii y a des facteurs bloquants benn mooy facteur sociologique facteur sociologique yi mooy ñun dañu am si aada teel a maye xale bu jigéen mu dem yi dañu amoon aada boobu parce que jigéen loo ko gën a mën a teel a maye féconditéem day gën a yaatu day gën a mën a juram da mën na jur ba presque dix doom mm-hmm. njuram mën na bañ a yegg foofu moo tax nag lii rapport bi bu feeñalee lii c'est parce que tout simplement léegi xale yu jigéen ñu bëri balaa ñuy sëy day fekk âge bi ñu waroon a sëy mhm. weesu nañ ko seen fécondité dafay wàññeeku. Mhm. am na ay facteur économique wax naa ko léegi fii facteur économique yi mooy sëriñ ñaa dafay dafay préférer am njaboot gu bëri mhm. bu demee retraite njaboot gi ku nekk mën ko aw mën ko dimbali nangam ak nangam loolu si facteur bloquant la mais beneen bi mooy facteur culturel fii jur doom presque ñun culture lañ ko jàppee xam nga niñ boo juree doom tey di nga woo say mbokk woo say xarit ñëpp toog ñu daje benn jour mu nekk benn facteur culturel bu am solo maintenant nag loolu c'est des facteurs bloquants mais nag gars yi systématiquement ci école lañ jaar pour dugal programme yooyu pour mën a jouer ci mentalité gars yi affaire bu xóot la bu garaaw donc kon jàpp naa ne aujourd'hui tey bu ñuy wax explosion démographique mën na nekk avantage si ñun mais mën na nekk loo xam ne du avantage des avantages ci ñun itam fi mu doon nekkee avantage si ñun mooy ñu nekk réew moo xamante ni benn suñu ay capacité d'épargne attan na ko mais bu nekkee un pays très faible du doon du doon gëneel si yow. parce que du doon gëneel si yow parce que population baa ngi ni taxaw ñun rek déjà fii ñu toll li ñu yor ni rek attanuñ ko ñaata nit ñooy arrivé sur le marché de l'emploi chaque chaque chaque année. tey ñu ngi wax xawma trois cent mille et quelques personnes ñooy accès aujourd'hui chaque année ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñëw tey defe naa ci lim boobu toog toll su ma mm-hmm. kon am imaginer dans vingt cinq bu fekkee ni explosion démographique bi li ma wax sànq accompagné wu ko mm-hmm. des infrastructures écoles yi sur le plan sanitaire mm-hmm. mais dañuy am problème tey àdduna bi ñoom lu tax ñu indi politique yooyu parce que xam nañ ni d'ici dix ans nit ñi bu ñu yokkoo te àdduna bi naa la wax benn affaire de ñeenti nit ñetti nit rek a koy contrôler de ñoom rek ñoo xam fii ak àdduna bi fii ak at fu mu jëm ñoom ñoo yor l'économie mondiale ay ñetti réew ñeenti réew kese la mm-hmm. ñooñu dañuy xam àdduna bi fa muy yegg est que bu ñu fa yeggee àdduna bi dina ko dina am réew yoo xam boo moytul dañuy disparaître complètement ndax boom démographique bu métti kon jàpp naa ne aujourd'hui la nga xamante ni moo ëpp solo ANSD c'est très important mu génne rapport xam ni weesu nañ fii ñu ngi fii mais autorités yi seen responsabilité dans tout ça tey boo demee Europe dañuy xàll ay espace ne fii ak 10 ans kenn du ko laal parce que am na ñu war a judd bu ñëwee fii lañ war a dëkk dañ leen fi prévoir ay hôpital mais ñun duñ prévoir loolu yëpp moo tax nag bu ñu jëlul suñuy matukaay mën na doon gàllankoor si ñun mm. mais si ñun mooy ñu amoon sur le plan économique loo xamante nii dana ko mën a tenir tête et que je pense que les nos nouvelles autorités ak yeneen ñi ñëw itam ci aspect yooyu lañ war a lañ war a wu nee nañ ci ci pétrole bi ak gaz bi am na loo xam daañ ko denc pour les générations futures c'est important c'est important parce que loolu laa jàpp mais daal suñ ko deful dana metti ji trop parce que besoin bi duñu ko àttan duñ ko àttan c'est important de le signaler waaye itam bokk na ci facteur yi tamit euh, bu njëkk ba suñu waajur yi dañ daan am benn ñaar ñett ñeenti soxna. soxna bu nekk mën ngaa jur juróom-ñeent. juróom ñaar mm. mais léegi tey boo xoolee ni Dakar nekkee ak yeneen dëkk yi. tey nga nga loué benn appartement boo xamante ne yow ak sa benn soxna yéen a fa nekk sa benn soxna boobu sax day liggéey moom tamit du la mën du mën chaque fois euh, ëmb wasin et cetera et cetera euh, loolu bokk na ci facteurs yi aussi sëriñ lii gën a tax mbir bi wàññeeku polygamie même lu ñu wax ni dafa dafa dafa compliqué compliqué ñun femmes yi compliqué nañ ko ba góor yi léegi même boo ci duggee tamit du yàgg euh, ay problème am problème mu njur am et cetera et cetera te suñu waajur dañ daan boole benn kër gu mag seen ñeenti femme nekk fa ku nekk di am doom ñuy dund ñuy dund ñuy dund si normal dëkk bi dëkk bi di li ndax boo dee see da nga naan man de sama maam amoon na pourtant ñeenti soxna wala ñetti soxna sama diw sama tonton la diw sama tonton la diw sama umpaañ la diw sama tata la et cetera mais loolu léegi dafa wàññeeku bu baax a baax a baax a baax ndax ni nga xamante ne noonu la dëkk bi euh, liiwee dëkk bu dëgër bokk na si sama genre gi ne wax dëgg yaa man damay yemale sama njur euh, méthode contraceptive yi nga xamante ne ñu ngi koy utiliser yi facteurs parce que soo koy utiliser en un moment donné di nga dem ba nga xamante ne wax dëgg boo bëggee juraat day nekk tout un problème. Mm-hmm. day nekk tout un problème. après pour vous parce que mën nga mën nañ mën nañu kii nañ ko nag nu mu tudd daganal nañ ko si espacement naissance pour permettre la nga noppalu et cetera et cetera mais bu fekkee da nga ci abusé euh, toog 5 ans di ko def mën nga toogaat 12 ans ou 13 doo amaat beneen doom. Mm-hmm. te loolu tu prends de l'âge sa yaram di gën a sonn boo amaatee beneen doom après da nga naan non arrêté naa ça va parce que mënatumaa mënatumaa jur loolu yëpp si à revoir te ay politique la comme ni nga ko waxee c'est à revoir te te ay politique la te ça passe par nous les femmes euh, mm. Omar ci ñun jigéen ñi la la lay jaar ba nga xamante ni ñoom li ñuy réussir nañ ko réussir parce que su ma nee sama jëkkër jii kat wax dëgg yàlla euh, euh, cent mille lay fayeeku par weer ma nar fee nekk di jur juree du ma ko def ñun suñu oh, mentalité du ma ko def waa en partie ñun dañoo am responsabilité bu mag ci ci lii contraception boobu noonu méthode kent contraceptive yi est-ce que mën nañ ko bañ aussi nan lañ mën a def par rapport ak euh, tey jii xam nga euh, xale boo jur boo boo jur rek euh, li la war si moom bëri na lool quoi léegi nag xoolal société bi fu mu toll xam nga si tu as fait bon les villages mm. nga yàgg dem ci village yi yàgg bayak yooyu tu te rendras